jaxle ak tiitaange lañuy fare ca Liberté 6 cité Barak dëkkee ginnaaw bi ñu jotee lii di sommation le 7 septembre bi ñu digmal ngir génn fi ñu nekk tuxu ci seen dëkkuwaay yu bees. luy yoon nañu def luy yoon ndax madame Ovon ba mu ñëwee njëkk ci président Abdou Diouf Abdou Diouf ne ko duma mayee suuf si décret laa leen di signal Cheikh Amidou Kane ñu ko bindal ñaar fukki at juróom Abdou Diouf wàcc Ablaye Wade ñëw ne leen du ma leen may suufu jàmbur buub suñu papa suñu doom yu góor yi kee ngi ne dundu deewagul ñoom ñëpp mu tëji leen rëbës ñun ñoo def démarche ba ñu génnee leen ma jur fi sama fukki bant sama biir yëpp fii la jeexee ñoom naka lañuy ñuy mun a ñëwee tabaxal ma man néeg ak saal naka la ñuy mun a ñëwee tabaxal kii benn néeg mu am juróom-ñaari bant naka la ñuy ñëwee xañ ñii fu ñu dëkk naka la ñuy ñëwee xañ doomu aadama yii fu ñu dëkk comme rek ndimbal la ñu wax te yàlla rek a tax. Euh, di wax ci mbir mi fi nga xamante ne nii moom la fi suñu mag yi wax rek man ci loolu loolu noonu laay feddali loolu noonu laay dëggal ndax man mii tey man Penda Diop fii laa dëkk Baraka fii la samay doom juddoo fi la ñu yaroo fi la ñu màggee. takk nañu ay soxna benn néeg lañ ma fi jox fii baraka te man ma nekk sénégalais sénégalais pur et dur dëkk fii biir baraka étranger yi fu ñu leen mën a joxee ñaari néeg ñetti néeg ak saal ñun sénégalais ñu war ñoo mën a jox fii lu yaatu ñu nekk ak suñu njaboot dëkk boobu ñu ñu wax nag nañu dëkk ñun amu gisuñu ci suñu bopp ñun sénégalais yi métti ñu ngi koy méttitlu di ko naqaru ndax borom ñett juróom-ñetti bant ñu jox la benn néeg nooy def da ngay dugg ci biir bàyyi say doom ci biti loolu ñu koy ñaawlu ba ci kanamu yàlla. kumba am ndey ak kumba amul ndey la jàpp ni moo am ci séddale dëkkuwaay yi. mu nekk lu ñuy ñaawlu. man doomu réew mi laa sama maam fi la juddoo sama baay fi la juddoo dofu ñu jënd jàpp ñu li ñuy def lépp xam nañ ko dafa am ñoo xamante ni dañ leen a jox jox seen rak seen papa mi ngi dee depuis cinq te ca armée lu Yoff ñu bind ko pour lan. sénégalais yi nekk fi dugguñu responsable APR bi ñu ni taxaw sama ginnaaw jërë juróom-ñetti doom ak jëkkëram ak goroom ñu jox ko benn néeg ak dus ak waañ ci juróom-ñetti nit ak jëkkëram di woo suñu président Macky Sall lim ñu waxoon fii yëpp ñun gisuñu ci dara gisuñu ci suñu bopp de wax dëgg neex fa yàlla gisuñu ci suñu bopp nañ ñu dimbale ngir yàlla te yàlla rek tax mu ñëw mu saytu lii mu xool ko mu defaraat toogin bi ñaawlu nañ ko bu baax a baax a baax nee nañ ñu nag fii amuñ amuñu pour di naan dañuy kaas wala dañuy coow dañuy kaas parce que doomu réew mi lañu ñi fi nekkul doomu réew mi gisoo leen fii kaasuñu ndax ñoom ñu nga dëkk fu yaatu ñooñu la ñoo jox ñu dëkk fu yaatu ñun ñi nga xam ne ñooy doomu réew ñu bëgg a taxaw fii di ay responsable yoo xamante ne war nañoo mun a am fu yaatu. Abdou Koli moom itamit dëkk fa lu mat fanweer at ak lu teg xamut fan la jëm ak njabootam. onze Sénégal ñi fi dëkk yu néew la kooku war wan ñoom war na ñëw seetaat loolu pour lan loolu loolu lay ñaan président moom si boppam mu yebal fi ay nit ñoom moom man moom laa àndal de politique am la yem moom la mos a mbote kon nag lii métti na xol suma doom yow cero bu ñu dégg fii man fu may jëm man du ma toog su kër ma doom bi sax ma sànni leen xam nga ñoom loolu la ñu xalaat ñun loolu la <coughs> loolu moo ta li dal li ma dal moo dal ñëpp. ñëpp lay kaasa kaas ma pour ma Abdou Coly kese. ñu ñaan wàllu ci njiitu réew mi mu ñëw seetu li ni mel ndax jàpp nañ ñi rek rax na ay njuuj njaaj. maye ñun naka la ñuy a ñëw téye nit ñu fat ko ba pare mu may ñu ci quota ñoom kon am nañ fi quota ci suuf si ñoom ñoo ñu ëppale fii ci suuf si ñuy doomu sénégalais di doomu lébu ëppale wuñ ñu ci suuf ba di ñu may quota ah te ñu indi ñu may ñu quota man ñu may ma quota man pour lan ñu may may quota ah, dañ nañu génn la set nañu génn te la set ñoo ngi ñaan président Macky Sall ginnaaw yàlla ak yeneen bi moom la yàlla fal moom moo ñu toogal fii ci askan bi bañ na ko ba nee na bugguma musiba bugguma saytaane mu ne xarama bàyyi réew mi waaye ñoo ngi koy ñaan di woote wallu nañu dimbali mu yónnee ay ndaw ñu ñëw saytu lu nekk biir baraag di xamle ni suñu réglé wul situation bi ñoom dinañ génn te jaral na leen lu nekk. ah dañoo waxoon. Sonko Macky Sall Adji dina ñu wax Sonko dinañu wax Barack xale yi ak président ñun nag ñoo ngi koy ñaan wallu nañu jàppale te yàlla rek a tax ñu nekk ay borom kër yu njaboot jaaxle loolu ginnaaw bi ñu nemmeeku ni dëkkuwaay yu bees yi ñu leen jox doyul mu nekk lu leen tiis loolu ndax xamuñu fan la ñu jëm ak seen njaboot teg ci ay fan yu néew ñoo des ci sommation bi ñu leen jox ñu ngi ci woo président de la république di xamle ni rekk situation bi jaral na leen lu nekk.